société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali jàmm ñu ànd xëy yér yéen kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xën mu njëkk ma ñu fekk fa professeur Iba Bari Camara muy ab jàngalekat ca université Cheikh Anta Ndakaaru daat nay wax ci dossier bi dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr te ñu jël ko yóbbu ko chambre criminelle te nag moom professeur Iba Bari Camara nee na bi maanaam kenn wuru a Babary Camara nee na nañu ko def huis clos journal bi ñu xëy fekk fa ministre Abdoulaye Sow ci bés bi yéen kaay moom nag nee na projet public lay sàkko moom i ba Babary Camara ci réew mi quotidien nee na bu boobaa nag maanaam sulante ay mbóota moo fa nar a am te nag bu boobaa maanaam musiba rek lay jura te ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñi mu àndal ñoom jàpp ñu ne dossier bi dossier politique la te nag lu jëm ci wàllum politique moo ko mën a lijjante te nag Ousmane Sonko wax nay militant ma na leen parale na ngir nag ñu daal di jàmmarloo te bu boobaa maanaam musiba la mën a indi ci réew mi réew moo xam ko rek fa la daal di jëm a kaay gi di enquête l'État nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef ni ki démb amal na ab méga meeting ca diwaanu Kër Masara waaye na mbooloo mu takko takku ñoo ko daal di fekkee mbooloo moo xam ne maanaam jéggi na dayoo moom njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na pare na jamono ji ngir tay la bakkanam nee na def na ab testament ba pare moom njiitul Pastef nee dem na sa diwaanu Ziguinchor dem na sa sëg yi fa xam ne fa la wu góor tëdd mu daal di koy ñaanal daal di sàkku si ay moom ay ñaanal ñëw ci waajuram wu di yaayam talal ko loxo ngir mu ñaanal ko nee na ginnaaw bi ko ñaanalee ci la jël avion ñëw ci Ndakaar moom njiitul Pastef nee na tas samaam defar na ko ba pare maanaam pare na ngir dee su dee nag Macky Sall reculé wul maanaam su Macky Sall deltuwul ginnaaw Ousmane Sonko nee na Macky Sall daf koy rey wala mu rey ko ndax nee lu jëm ci dossier bii nga xam ne maanaam ay caaxaan ki toppale la ak i complot moom Ousmane Sonko pare na ci maanaam dem na ba sa njobbaxtal ga li mu muñ dafa ëpp trop sa trop moom Ousmane Sonko nee na musuta sàcc musuta violé te nag andil yoo xam ne moom ci boppam doyen de juge maanaam nanguwu koo jël yéen a kaay na moom Ousmane Sonko woo na ñi nga xam ne ñooy ay militant ma ngir nag ñu daal di takku taxaw ngir nag daal di jàmmarloo yéenekaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall moom nag daal nay woo ñi nga xam ne di taxaw ngir na ñu nañu pare yéenekaay na ci lii furub Cheikh Yérim Seck bi nee na Cheikh Yérim Seck ne dafay parparloo di neexal Amadou Ba na fi giraawal yeek scandale yi nga xam Ba def na ko ci réew mi ba tey bi ñu fekk fa njiitul Senelec di Pape Demba Bitèye moom tim bind nañ xam ne moom la ko Cheikh Yérim Seck bind la nee na loole dara du ci dëgg te Cheikh Yérim Seck ay njuumte yu rëy la def yéen a kaay gi de l'info andiwaan ñu Kër Massar ak Ousmane Sonko mbooloo mi nga xam ne maanaam moom la fa dajale niki démb journal bi nee njiitul Pastef di Ousmane Sonko fippu na ginnaaw boo xam ne kenn musu koo gis Kër Massar Ousmane Sonko nee pare na ngir tay la bakkanama su dee nag Macky Sall jël tuwul ginnaaw Aliou Tine bi nga xam ne moo dox diggante Ousmane Sonko ak Adji te ñu jël ko yóbbu ko chambre criminelle la nee na dossier bi mën naa yóbbu musiba mabbu kumba gu rëy la mën la jural Sénégal le quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na œil pour œil dent pour dent maanaam ku leen ko timbax ñu ri mbax la ko nee nañu jamono ji pare nañu ngir jàmmarloo ak Macky Sall su dee nag Macky Sall jàmm la bëgg dina am jàmm waaye nag su dee guerre la bëgg dina ko am te guerre nag dafay saf mondial yéen kaay gi di Walf Fadjri Ousmane Sonko nee na Macky nous tuera ou nous le tuerons loolee la ma ngi ci xët mu njëkk Walf Fadjri journal bii di Vox Populi dossier nee na egg na ci terminus jamono ji final bi moo si des bu dee nag Macky Sall deltuwul ginnaaw maanaam mandaam bi du ko yeggale yéen a kaay gi de Libération nee na Ousmane Sonko gagne le pari de la mobilisation maanaam mu takkoo ñoo génn ni ki démb ca diwaanu Kër Masara waa Libération ñooy wax Ousmane Sonko mooy wax nee na Maham Diallo criminel la bu dee nag Macky Sall ma ngi na ko leer na mandaam bi moom du ko jeexal yéen a kaay gi de la Tribune na Ousmane Sonko ma ko àtte yéen a kaay gi de Libération ñu Ousmane Sonko daf koo fenal daf ci lu jëm ci vingt-neuf milliards yu Prodac moom Mame Mbaye Niang nee na lu jëm ci wàllum Prodac boobee Ousmane Sonko moom procès ba na dina daal am moom Mame Mbaye Niang daan nay wax ne Ousmane Sonko nee moom dafa informé wa lan moo tax muy wax lu dul dëgg te nag mënu see andi benn preuve waaye nag mbiri Ousmane Sonko jamono ji mën nañoo wax ne du acte politique waaye acte civique la ak citoyen enquête yéen a kaay moom moom la la munta nekk ci réew mi nag dem ci xale yu jigéen yi ba pare di tuumaal ay nit ne dara du ko ci fekk loole mun nekk te sax Ousmane Sonko moom nee na woon pare na ngir nag dem jugement ngir dem procès ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr moom moo doon soññee moom Ousmane Sonko jamono ji jël nañu mbir mi yóbbu nañu ko chambre criminelle lan moo tax muy victimisé woo yéen kaay gi nee na Ahmed Aïdara maire bu ville bu Guédiawaye juróom benn weer yoo xam ne fayul ay nga xam ne ñooy liggéeyee ca mairie ba maanaam agent mairie yi yéen kaay gi de Les Échos nee na lajj moo am ci ndaje ak ñi nga xam ne ñooy yi ñi nga xam ne nag ñooy transporteurs yi ginnaaw nag seenub gerew boobee am na si ñenn si ñoom ñoo xam ne ci autoroute bi dañu doon yàq ay bus di bëgg a taal ay pneu am na ñu ñu ci teg loxo yi kaay gi di Rewmi Quotidien nee na gerewu transporteurs yi ñi nga xam ne ñooy jakartamaan yi ñooñee ñoo si gis seen bopp ci banlieue bu Ndakaaro charrette yi tamit ñoo ngay daw yéene kaay gi ne na Sambaka tiktokeur bi nga xam ne moom la ñu jàpp loxo si poosa muy sàcc sa diwaanu Linguère nee nañu tey ji la ñu koy jébal procureur waaye nag bii du njëkk ci moom Sambaka yéene kaay gi di Stades nee na CHAN 2023 Sénégal qualifié na ci quart de finale ginnaaw